asalaamaaleykum yéen ñi nga xam ne yéen ay internautes TV tey nag ñu am ku nga xam ni ràññeeku na lool ci wàllum paysage médiatique bi ci wàllum presse mu di Makhtar Cissé ñëpp xam xàmmee ko te ràññee ko lool euh, ñu bàyyi ko rek mu nuyoo ndax war nañu xuus ci ay sujets yu bëre war nañu xuus ci wàllum réforme de la justice euh, war nañu xuus tamit ci li nga xam ne moo doon procès bi nga xam ne moo gën a médiatique jamono jii te moom la ñu gën a euh, ràññeeku ci li nga xam ne moo di presse bi moom ma nga fa woon tooy woon ci biir salle bi nekkoon reporter pour pour presse bi nga xam ne moom lay liggéey moom lay liggéeyee. waaye dañ koy bàyyi mu nuyoo rek laata ñuy tàbbi ci question yooyu noonu yëpp sëñ Matar ñu ngi lay ziar. waaw euh, asalaamaaleykum Baye Omar Omar Kane ñu ngi lay nuyu di la di la di njokkeel di nuyu également mbokk internet yi nga xam ne ñu suivre sur sur ASID di wax ne euh, ñëpp képp ku ñuy déglu su kàddu yu rafetee rek suñu borom la waaye su amee lu si dëng rek ñu daal di ñu jéggal waaw Matar du ñu du ñu tourner du pot dañuy tàmbali balaa dara di xew ndaxte eh, gis nañ ni. déjà am na li nga xam ne moom moo def actualité fan yii muy lancement de la du de réforme mhm. de la justice bi mhm. euh, ñu defoon ko démb jam ñaajo euh, nga dégg kilifa yu ku si nekk am na ci ay kàddu yu mu yëkkati bu buñ la laajee déjà sa gis-gis ci mhm. loolu déjà sa gis-gis ci initiative boobu laata ñuy dugg ci fond bi xam nga on parle de dialogue Omar euh, mu doon question bu am solo par rapport ak dialogue national ñuy waxtaan maanaam réforme ak modernisation de la justice dañuy seetlu ne point yi nga xam ne moo waral waxtaan bi si rawatina ouverture bi mu nekk li nga xam ne mooy le statut des magistrats magistrats seen taxawaay si wàllu justice ak li xam ne mooy organisation et le fonctionnement du conseil de la magistrature ak mbiru condition de détention et de la prévention des de la réinsertion sociale des détenus ñi nga xam ne tey seen eh, wàllu dugg si société bi day métti parce que nekk détenu politique détenu rek euh, génn kaso duggaat sa biir kër des fois day métti pour nga intégrer waa société bi ak li nga xam ne moom mooy le régime de euh, de liberté yow dund nga ko keneen dund na ko maanaam le fait que tey kàddu nit ki ñu war ko mën a may euh, liberté mu mën ko exprimer waaye nag teg ko si jub jubal ak jubanti ak li nga xam ne moom mooy la prise en charge des enfants en danger en conflit avec la loi maanaam xale yi nga xam ne des fois ndog-ndog da leen euh, dal si seen i euh, doxalin si si wàllu justice ba teg leen loxo yóbbu leen formé wala feneen ni mel donc point yooyu noonu rek ñu cité Omar jàpp nañu ne point am solo la parce que réew loolu la tey soo duggee biir kaso nga nekk Rebeuss wala Cap Manuel ñu si bëri loolu moo leen dal ñu si bëri tamit dañuy toog benn 5 ans ba 10 ans ñu ne leen kaay leen génn defoo leen dara ñu tuumal leen sans enquête. maanaam réew mi lu fi yàqu woon si wàllu justice dafa bëri te le président de la république wax na ko maanaam ñu war a fexe ba jubalewaat Sénégalais avec la justice. kon yow da nga bokk si ñi yaa ñiy jàpp ni désamour dafa am entre la justice et la population. loolu mooy la réalité parce que même tey soo xoolee euh, Sénégalais yi nu ñu doon dundee ak wàllu yoon tey ay temps da ngay gis gendarme rek ak policier rek da ngay tiit maanaam dangay dem ba yow da ngay am benn sax de haine envers te ñu nekkuñu justice benn maillage rek la par rapport ak justice justice bi mooy les magistrats ak le procureur yi nga xam ne wax ne war na am par rapport ak ses le ministère de la ki nga xam ne mooy le procureur ba tey ministère de la mu di jël procureur bu mu baajow si moom mu am une indépendance de la justice maanaam séparation des pouvoirs entre l'exécutif ak le pouvoir dina bokk si réforme yi ak conclusion yi nga xam ne ñu ngi koy xaar mardi dañu jàpp ne loolu noonu dina mën a tax ba justice Sénégal tey ku ne mu bañ am ku ma mu ndey euh, am ndey ak ku ma mu am euh, bàyyi waaye loolu si loolu tamit dafa am lu ñu war a firndeel lu am solo mooy li nga xam ne tey moom mooy tey si réew mi nit ki kàddu goo yëkkati mu méngoog li nga xam ne moom mooy dëgg gi soo nga bañ a jalgati yoon parce que yoon ñëpp la fi nekkal nga nekk pouvoir wala opposition waroo wax li nga xam ne dafa dëppoowul ak ak yoon donc jàpp nañ ne suñu nee ba am indépendance de la justice boobu noonu indépendance boobu tey dina tax réew mi si boppam am jàmm fiix parce que réew justice moo koy doxal. Mm-hmm. waaw nga wax lu am solo maanaam cordon ombilical bi nga xam ne moo lié euh, li nga xam ne moo di exécutif kii waaye loolu mm-hmm. ce que bu dañee du indi li nga xam ne moo di république des juges parce que gis nañ ni mm-hmm. euh, démb rek le président de la république dans son intervention am wax na ko nee na il redoute qu'on qu'on installe euh, li nga xam ne moo di une république des juges donc ci wàllu woowu est-ce que tey gis nañ tamit UMS e mu union des magistrats du Sénégal ñu ne ñoom le son excellence le président de la république ne doit pas sortir du conseil supérieur la magistrature. Mhm. ñoom amuñu ci contrainte. Mhm. parce que ñoom dañ jàpp ne moom foofu mooy place am. yow ci loolu noonu yëpp lan moo ci sa gis-gis. xam nga xam nga président à un président mënuñ ko génne dara ci réew mi. président mën nañu ne des fois day nekk opposant des fois moom moo nekk au pouvoir des fois moom mooy superviser donc président moom mooy ndar dëcc dëpp bi dëkk bi tey dëkk bi ku fi euh, soxla nit. dañuy wax ne kilifa bu gën a mag président de la république doon mënul génn si justice mënul génn si politique mënul génn si débat social li nga xam ne mooy mbiru société wala politique wala sax li mbirum religion parce que ñëpp lay demal ñëpp ñëpp ñoo koy ñëwal waaye nag dafa am loo xam ne moom lañ doon bañ mu amaat fii mooy li nga wax léegi république des juges moo fi amoon donc république des juges boobu noonu pour nag ñi bañ ko dund moom wax na ko souligné na ko mooy le président de la république xel ku nekk kàddu gi nga yëkkati xool ndogal yi muy jël waaye nag du si am ab dogal maanaam tey su su su su amee kenn amee problème koo xam ne peut-être mun na doon une information de conflit judiciaire entre deux personnes yi nga xam ne te président de la kenn ki jege na ko donc moom war si foofu la war a àgg mais nag lan mooy séparation des pouvoirs si wàllu république moo dafa am solo parce que procureur moom état la fi nekkal loolu kenn mënu ko dindi si si li nga xam ne mooy système judiciaire waaye nag ñi fexe tey ba tey procureur bi nga xam ne tey moom ministère bu mu sukkandiku ministère la justice kenn mënu ko waaye muy wax tamit dëgg ki nga xam ne mooy ministère de la justice na ko ah lii kat lañ bëgg lii lañ bëgg soo bëggee def loolu yi du ma ko def gis nañ fi procureur yi nga xam ne tey dañ doon toog di reer ak président de la république gis ay dossiers yoo xam ne moo si teg tànkam gis également ay ndaw yi ñu war a atte nga gis ay magistrats yi dem jël congé te gis nga ne kaso yi dafa dafa xat donc loolu yëpp ay réforme la nga xam ne dañ ci war a bàyyi xel moo tax. waaw jàppoo ni war nañ mun a def ci comme li nga xam ne moo di république fédérale de Russie. Mhm. ñoom seen procureur bu ñu ko xasee ba nommé kenn mënatu ko destituer durub mandat bi mu am. mais loolu mais loolu mooy yoon loolu mooy yoon ñoom ñoom defuñu politique ñoom dañuy xoolee fee defendre li nga xam ne moom mooy intérêt état te état intérêt am jàpp nañ ñun ñëpp ñoo ko war a défendre moo tax ma ne réew mi même cadre politique bi sax su génnee. ñun ñun nañu xool xam ne ne justice bi si boppam dafa dafa war a indépendante te indépendance de la justice peut-être mun nañ roy si si si Russie mais ñun ak ñoom bokkuñu li nga xam ne moom mooy le cadre bi bi nga xam ne maanaam les même concept wala bokkuñ sax li nga xam ne mooy historique wala histoire si wàllu si wàllu droit justice parce que Sénégal dafa tënk si li nga tënk si loo xam ne moom mooy France léegi nag dañuy wax ne dañuy war a génn si nooteel mais nañ fexe ba ni ñu doon ni suñ texte yi suñ loi suñ code pénal yëpp tënku si France ñu jéem ko euh, defar ak suñ taarixu réew maanaam mu ànd ak li nga xam ne moom mooy culture Sénégal par rapport ak li nga xam ne moom mooy kenn su Souleymane bal avec ses lois jàpp nañ ne l'Afrique moo gën a souverain si wàllu justice si wàllu démocratie si wàllu économie l'Afrique moo ngi njëkk di nekk un pays démocrate te le Sénégal rawatina le Sénégal c'est un pays bi nga xam ne c'est différent par rapport ak yeneen pays yi nga xam ne gis nañ ko parce que tension la gars yi bu fii nii malheureusement le président de la République Macky Sall a reculé tey le président de la République Bassirou Diomaye Faye jël na pouvoir yi ñu am sens defar mu méngoog Mhm. maanaam ndax ñun saa ñu amee contentieux bañ na ba ci penc mi lañ ko doon génne mhm. waxtaanee ko mag ñu toog waxtaanee ko mhm. après ñu trouver un consensus trouver une solution te ci wàllum euh, pàccu si li nga xam ne moo di euh, droit wu Sénégal code de procédure pénale bi ak euh, yoona yoon ak yoonal ci dëkk bi dafa am benn part bu assez important buy bi nga xam ne am na si mooy médiation pénale mais médiation pénale boobu dañu gis ni dañ ko doon euh, euh, favoriser ñenn ñi mhm. di bàyyi ñeneen ñi mhm. est-ce que tamit euh, bu fekkee jëluñu rek dépoussiérer li nga xam ne moom mooy suñu ay suñu ay normes ak suñu ay rek parce que loolu noonu suñu cadre juridique mhm. ak cadre normatif yëpp kii nañ ko quoi intégré nañ ko ba pare donc est-ce que du application bi mooy poser problème ak nit ñi ñu fay teg xam nga nit ñu ñu fay teg rek mooy concept bu génn bees jub jubal jubbanti si wàllu yoon si wàllu fépp foo mun ti nekk tey ñi nga xam ne ñooy juge tamit nañ am disponibilité par rapport ak di déglu Sénégalais yi problème soo demee tribunal da ngay gis ne ñenn ñi nga xam ne seen loxo matul seen seen ginnaaw ñooy gën a sonn wala on a des avocats politiques ràññee nañ ko fii du tudd tur waaye gis nañ fi ay yi nga xam ne tant que joxoo leen xaalis duñ duñ duñ la défendre alors que la partie civile dafa am ba pare code pénal bu Sénégal dafa am lu am solo lu mu wax loo xam ne régime bi moom moom moom jàpp nañ ne dina ko fësal te ñu si tànk bi moo tax ñu dañu am yaakaar am nañu yaakaar ne lépp li nga xam ne wàllu yoon la wàllu wàllu droit la wàllu justice yoon yoon si dëkk bi la nga nekk du côté de de du pouvoir wala du du côté de l'opposition soo deful yoon dañ la koy teg parce que déggal premier ministre Ousmane Sonko wax na ko mu ne li nga xam ne tey moom mooy ay jegeñaaleem képp ku si def li nga xam ne dëppoo wala ak yoon dañ lay teg si yoon donc loolu yaakaar bu yaakaar bu rëy la te yaakaar bu rëy la ba tax tax nag tey ñi nga xam ne tey mooy mooy les juges et les ñoom sax dañ leen war a que code pénal am na yoon dañ la war a teg ci li nga xam ne moom mooy yoon léegi nag dafa am li nga xam ne moom lañ moom lañ war a bàyyi xel wax mooy les longues détentions ak ndaw yi nga xam ne également war nañ leen réinsérer waat si bi nga xam ne mooy biir société bi maanaam tribunal des mineurs am na fi nga xam ne foofu la ñu attee xale yi léegi par rapport ak ñoom psychologique bu bu ñu bu ñuy am wala ki def wala ku deful nan lañ ko mën a ràññee ba tey nga xam dossier judiciaire yi au moins dinañ ko mën a classé euh, ba xam ne tey dinañ xam ne kii kat deful enquête yi ñu gën ko fësal parce que mënoo jël benn euh, Matar bi nga xam ne tey si banel bu dëkk ay ay waajuram yoruñu tinuñu nga ñëw jàpp ko yóbbu ko kaso ba bare doo jël xool def doo def enquête par rapport dossier am bàyyi ko fa 5 ans mu nekk rëbës bare xamoo lu mu def dañ ko tuumaal rek parce que te tuumaal bokkul ak li nga xam ne moom mooy euh, les faits nit mënuñ ko tuumaal fekk amuñu li nga xam ne moom mooy euh, les maanaam les yu ñu koy condamné Sénégal dañaa nemmeekoon ñu bëri ñun yóbbu mandat de dépôt bàyyi leen foofu noonu kenn du leen lijjanti parce que ñun dañuy euh, nga xam ne moom lañu amoon ak suñu yoon moom mooy tey suñu la jàppee yóbbu la kaso rek naan yow nit ko bon nga alors que yow amaan sax défaut léegi nag kooku nag mën na travail psychologie psychologie am après mu am mu mujjee am problème te loolu baaxul si li mooy mooy mooy nekkinu askan bi am nañu yaakaar naa nag réew mi war na mun a coppite te suñ changé si constitution bi lay lay changé ñu am constitution bi nga xam ne du méngoog la constitution française ba li nga xam ne moom la Thierno Baal bàyyi ko fi ñoom yeneen kilifa yu baax yi bàyyi ko fi même si wàllu diine bi gis nga gis ne kilifa yu bëri maam Abdoul wala Serigne Touba bind nañ li nga xam ne mun nañ sukkandiku rek pour am constitution bu baax parce que lu ñuy wax rek c'est entre la république euh, l'état et le pouvoir tant que le pouvoir muy contrôler li nga xam ne moom mooy euh, les euh, maanaam fonctionnement de l'état li nga xam ne moom mooy la république li li luñ bokk ñun société bi ñëpp ngi jaar si yoon jàpp naa ne du am benn problème si wàllu yoon te si yoon bi doxe yoon bi euh, suñ doxalee yoon rek jàpp nañ ne réew mi ñëppay dina am souveraineté si si wàllu web. waaw ñuy ñuy rafetlu sa gis-gis ci loolu ci réforme yi waaye nag euh, du ñuy am foofu ndax ci wàllum justice la ñuy rek euh, gis nañ nga nekk ki nga xam ni yow yaa présent woon si saal si salle bi nga xam ne moo di procès médiatique bi fi gën a am mu di ci diggante Bah Diakhaté ak ki nga xam ni euh, mooy euh, saa tuuma yu mu jëloon teg ko waaw foog ñu dugg ci tuuti foog ñu dugg si as tuuti parce que euh, je pense que tu es, vous êtes partie de d'une des seules personnes bi nga xam ne mën nañu rapporter fidèlement ce qui s'est passé à l'intérieur mm-hmm. euh, de la euh, euh du tribunal mm-hmm. de la salle où se tenait le procès mm-hmm. donc euh, yow yow yaa ñu mën a wax lan moo fa xewoon liñ la li ñu am njëkk am envie laaj la bu ñu jaaxaaloog yow mooy ñi nga xam ne ñoo tuumaloon ak tuuma yi ñu waxoon ne am nañ ci ay preuves ak ñi nga xam ne ñoo leen seen souteneur di génn di wax di di di kaas ne non am nañ ay preuve donc dañu war a libérer Bah Diakhaté bu ñu taxawee ki nga xam ne moo di Bah Diakhaté ak Imam Ndao bu ñu taxawee ci kanamu juge lan lan lañ fa wax est-ce que dañoo maintenir seen ay propos est que indi nañ fa ay preuve wala lan lañ fa def. xam nga preuve day day day day doon loo xam ne dañ koy vérifier certifier ko document bu xam ne c'est certifié c'est certifié légalement. bañ taxawee muy Bah Diakhaté ak imam si ba si Bah Diakhaté laa njëkk a ñëwee par rapport ak li nga xam ne moom moo di benn audio ñaari fee la mooy lu mu tuumaal premier ministre Ousmane Sonko mu mu doon ay kàddu yu ñaaw donc li nga xam ne tàmm ko gis mu wax ko en direct Sénégal ko donc ba mu ñëwee taxaw à la barre bañ ko ko laajee indiwul si loolu preuve maanaam mbiru góor jigéen ak yu ni mel indiwul si preuve waxu si également lu leer donc ñun Sénégalais dañu doon xaar ne. moom lan la wax. moom lu wax carrément moom su boppam moom waxul la Ousmane sonk moom la. parce que question bi nga xam ne moom la ko procureur posé parce que procureur day day day am euh, occasion posé question laaj ko ba xam li nga wax si vidéo bi yaa ko wax yaa ne Ousmane Sonko moom la moom waxul ba léegi waxul ne si biir baat bi taxam taxee waxul ne Ousmane Sonko moom la donc loolu mu mu doon lu nga xam ne jaaxal na jaaxal na ñu bëri te mu doon information bi nga xam ne yenn médias yu bëri relais wuñ ko ñun loolu moo ñu loolu moo ñu xaw a xaw a métti donc te loolu moo waroon nekk xam ne moom mooy fi ñu waroon focus wax dëgg bi. kon da nga jàpp ñoo ko tey a relais information dafa am ñaari façon de média dafa am sukkandiku si dëgg muy la vérité am yi nga xam ne dañuy def pour yàq pour diaboliser donc euh, si loolu noonu lu des tribunal ba ba pare si audience bi imam euh, Ndaw Cheikh Tidiane Ndaw moom reconnaître na que moom audio bi moom moom la mook Bass Diakhar ñoo waxtaan ci audio bi mais moom dafa wax ne moom dañ ko modifie dañaa modifié maanaam audio bi maanaam les vrais yu mu wax mu mu ne moom takul ne tam audio bi moom moom la waaye audio bi si moom dañ ko dañ ko modifié te audio boobu noonu mu ngi def li nga xam ne moom mooy tollu si 7 minutes te ba Bass Diakhar dafa dugal imam bi. Mhm. ba nga mu ne moom lu mu wax si mbiru homosexualité si wàllu si wàllu premier ministre bi moom nee na li li nga xam ne moom la euh, imaam Ndaw wax moo gën a garaaw fuuf moom lu mu wax mooy audio boobu nga xam ne tey enquêteurs yi ñoom téye nañ ko analysé nañ ko te ndax la moo tax verdict bi génnul mooy li nga xam ne moom mooy document bi mu indi mooy beneen fee bi parce que mbiru homosexualité moo moo doon feeñ ci tribunal mais amoon na beneen mooy mbiru tuumaal yi mu yëkkati par rapport ak nee na Ousmane Sonko le premier ministre dafa jaay benn immeuble à 100 millions en 2018 mu génne ab document na lii mooy preuve yi pour procureur jël na ko nag jox ko jébal ko monsieur le juge monsieur le juge xam naa loolu moo tax mu renvoyé li nga xam ne mooy le verdict ba li nga xam ne moom xam document bu parce que tuumal nit ki rek day yomb waaye moom lu ma la mën a wax rek mooy mbiru euh, ngóor jigéen yi moom assumé wul carrément que ne moom lu mu waxoon ci vidéo bi moom moo ko waxaat te ñun loolu lañ doon xaar mu daal di koy wax parce que tey taxaw biir tribunal na trop jàkkaarloog juge waaye li nga xam moo nekk ci PV bi su nekkee wax wax waxoo ko. kon euh, dañuy jàpp ne yow yow li nga waroon wax waxoo ko kon da ngay manipuler sénégalais également ñu àndaloon ñoo a di manipuler yi nga xam ne mooy la masse populaire maanaam les sénégalais avant verdict bi di génn sax ñoom génn nañ commencé yuux ñoom Adama Fall ak ñeneen ñu àndal ñoom ñoom Omar Sow te donc loolu doon na li nga xam ne tamit ñun journalistes yi ñoo si war a gën a mun a bàyyi xel mënuñ toog euh, joxe verdict ñoom ñu commencé alors que la presse bi nga xam ne tey ñoom ñoo fa nekk di relayer l'information ñu ngi ci biir donc les militants de Bah Diakhaté mënuñ mënuñ ñoom euh, déguisé wu en journaliste bëgg a joxe information alors que journaliste ñu ngi ci biir génn guñ joxe guñ information bi donc loolu moom moo gënoon insister ma sama kàddu man dama gis gis sama courage toog wax ci penc bi ne lii moo xew lii moo xew donc loolu loolu la mbir bi demee daal par rapport à l'audience mm-hmm. waaw waaye ñu gis ni yow euh, foofu dañu dégg ni euh, bi nga xam ne dugg gën nañ xuus ci audience bi dañ ko transformer en une audience politique non non non xam nga c'est c'est une réelle audience politique parce que audience judiciaire au moins dañu war a indi preuve les faits ñu waxtaan ne lii ak lii la demee xool ba xam dañ koy incriminer wala mu demee moom am na sax ba ñu ko flagrant délit parce que ñoom li ñu fa bëggee nekkoo ñoom militant Bajakare mooy nekk si biir tribunal bi di ruube commencé woon nañ sax indi incident am ay xuloo xeex de gauche à droite. yi génne leen. parce que mais dossier bu mel nii jamono yu yàggul dara mat ay deux mois ginnaaw. Mhm. instruction nga doon dem. instruction pourquoi le dossier ñu daal di koy renvoyer en flagrant délit alors que ay tuuma yu yu yu kawe la donc loolu nag mu ñun moo mooy mooy njaaxal tax mu dem flagrant délit demul nga xam ne moom mooy instruction waaye tamit dafa am yeneen plainte yi nga xam ne dafa teguwaat si si kawam mooy Ababacar Mbuub ak ñeneen ñi nga xam ne ay tegal nañu ko euh, docteur Alfousseni donc moom tamit dugal na euh, li nga xam ne moom mooy plainte am donc yooyu noonu lépp ñun jàppuñ ne moom. ak la famille de euh, Didier Badji ak Philibert Samb parce que tamit moom dafa impliqué woon par rapport ak l'histoire de de de de de par rapport ak lu xewoon ci ci Sénégal l'histoire de de ñi ñu woowee des les dignes de ce pays ba léegi seen dossier ñoom leer ñoom Philibert Samb ak ñu ni mel moom dafa impliqué woon di leen sosal di leen fenal di wax li nga xam ne tamit dëppawul ak li nga xam ne moom mooy yoon. basi bu François Mankabu waaw basi François Mankabu donc ñu ñu ñuy euh, ki nga xam ne moom moom mujjee gaañu di di mu doon lu mbir bu métti bi nga xam ne Sénégal dund nañ ko te ñun journalistes yi ñu war see mën a indi ay leeral par par la voie des documentaires wala des reportages yi nga xam ne les documentaires sensibles lay doon. tey fu réew mi toll om lu ma la mën a wax leen kese la ñi tooñoon dinañ yàlla moo leen weer nekkul pouvoir bi fi nekk moo tax may wax ne le pouvoir bi fi nekk nañ xam bu baax lu ñuy liggéey ñu bañ a ñuy dumoo wax wax yenn yàq yi dama toog dafa am ñu génne xaalis ay lobby pour yàqal gouvernement bi fi nekk te loolu noonu yaa ngi gis képp kuy journaliste wala képp koo mënti noonu loolu da koy war a gaaw a alerter parce que ñun fóote wuñ benn côté dañuy waxta yàlla tax yàgg nañ fi liggéey ñi naan kii kii nga far yàgg nañ fi liggéey nga si xaalis fii alors loolu yëpp amul yow xam nga li ma lay wax donc moo tax à un moment donné il faut prendre nga jël sa courage wax fi bi féetee dëgg bi nag le ngi xaar en attendant moom génne nañ ko prison fële nga xam ne foofu la nekkoon yóbbu ko dik pour plainte abarka mbubb bi di dégluwaat nañ ko parce que li ñu koy toppee doon na li gën a garaaw encore te mun na si am problème Mm-hmm. parce que dafa mel ne bokk na ci diffusion de fausses nouvelles bokk na ci. Euh, offense offense waaw. chef de l'état waaw bi nga xam ne. Euh, article 254 euh, alinéa 2 parce que ñu bëri dañuy jaawale article 80 article 254 mm-hmm. parce que article 80 offense au chef de l'état au chef de l'état non loolu loolu mi ngi doon attente à la sûreté de l'état mooy article 80 donc article 254 alinéa 2 bi mm-hmm. moom la procureur brandir démb pour ci ci ñi nga xam ne ñoo di Ba Jaxate imaam Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw mhm. waaye nag dinañ la laaj yow eh, li nga xam ni mooy ji sa gis-gis si cas yi parce que cas bu mel nii eh, doonoon na li nga xam ni doon na compliqué trop sur le régime passé mhm. fi mu ne nii déjà li nga xam ni moom la euh, euh, kii demandé li euh, mhm. nga xam ni moom la procureur demandé six mois la ak cent mille francs gis naa de manière ironique sax ñenn ñi di wax naan ndaxam diffamation dafa wàññeeku ci réew eh, looy looy tontu ñooñu xam nga pour pour le petit pour commentaire bi nga xam ne mën nañu ko def par rapport ak li ñu mel ko dañ ko gis ne jamonoy euh, le procès Mbaye Niang ak ki nga xam ne mooy Sonko diffamation lañ doon woowee mbiru Prodac bi mais daan ba ba ba ba ba ñuy ba ñuy tuumal ko teg ay daan luñ pen bu ne nga doon dégg ñu ñu ñëw ñu ne diffamation wala division de fausse nouvelle trois mois la loolu tamit war nañu xoolaat suñuy texte la moo tax ñu sukkandiku si loolu noonu waaye tamit ki nga xam ne mooy procureur moom moo prononcé wu rek procureur mun na wax 3 mois 6 mois ferme juge bi ñëw yokk peine bi euh, procureur tamit mun na wax pen bi nga xam ne pen bu oyof la juge bi ñëw gën a gën a wàññi li nga xam ne moom mooy peine bu mu prononcé. parce que je rappelle euh, sur le procès de Mame Mbaye Niang le procureur avait requis. Mmh. Euh, millions de francs CFA. 200 de francs ak 2 ans mm-hmm. deux waaw ak te ba léegi mujjul fenn. parce que dem nañ ba xam au fur et à mesure la la la condamnation n'était pas définitive.

malgré mu doon wax di génn def des sorties mais ñu bëri xamuñ ko woon ci Sénégal léegi dossier bii nii gën na ko may ma gën na ko may may damay lay wax rek par rapport ak benn anecdote man dem naa couvrir ko ba mu waxee ne otom dañ ko lakk mooy jamono yi ñuy taal oto yee ñoom si sa mbay déclaré que dañuy yàq seen oto dem naa Pikine ma couvrir vidéo mu ngi si mu ngi Sénégal set ba léegi maa couvrir ba jaxate mais nu ma xoolee oto bi xam naa ne yaa quelque chose yaa angle sur ba léegi xamuñu kan moo yàq otom kan moo taal otom donc am na ñoo xam ne tamit dañuy nekk di créer l'information pour susciter de l'information pour def du buzz waaye jàpp nañ ne jamono jii nii les questions à l'heure yi ñu war a waxtaanee bokk na si développement de notre économie de l'urbanisme la structure war nañ waxtaanee moom mooy mbir industrialisation parce que nañu def suñu liggéey ñu gën a sur des sujets thématiques intéressants sur la pêche sur l' économie sur l' agriculture parce que réew mi gouvernement bi soxla na ko tey su nekkee dañu nar a orienter le débat vers des jàpp ne kon ñun dimbali wuñ gouvernement bi fi nekk pour mu mun a liggéey ndax askan bi parce que pour fàtte bi liggéey dañuy liggéey ngir askan bi mais liggéeyuñ ngir suñuy poos donc loolu noonu war na tax information bi nii ñu bàyyi mu jàll suñ ko waree daan ko ku fi tooñ nag keneen ak keneen état yoonam nekku si état yoonam nekkul ci dossier bii nii déggoo ba léegi Ousmane Sonko porté plainte c' est procureur de république qui s' est autosaisi ba procureur autosaisi am na droit autosaisir parce que procureur day déglu askan bi ñëpp tey su ma waxoon leen lu dippoowul ak leneen procureur day autosaisir woo convoqué ma ñëw donc loolu am am na si droit yoon moo ko may donc sénégalais yi nga xam ne ñu ngi leen lëndëmal seen information yi tamit nañ dem di déglu nga xam ne ñoom ñooy joxe information bu baax bi te ñu ràññee kan ak kan moom moo moom lañ jënd si média bi kan ak kan moom mooy wax ngir yàlla tax waaw ñun daal loolu lañ bëggoon leer si dossier bi mais dossier bi on moom daal xam ne jaratul wax jaratul wax. Mm-hmm. waaw dafa euh, ñu lay euh, di di di véritablement jaajëfal ñi nga xam ne ñooñu doon topp ñëpp waaye dañ lay bàyyi rek bu fekkee si tu as un dernier mot à ñu bàyyi la ak yoo xam ne moom nga bëgg nga ko wax sénégalais yi ñu bàyyi la nga wax laata ñu tàggatoo. waaw dernier mot bi day day par rapport ak nouveau gouvernement muy. Euh, le président Bassirou Diomaye Faye ak son premier ministre Ousmane Sonko di wax ne ñun on pas avec mais on avec par rapport ak li nga xam ne noonu la bëgg liggéeyee ci askan bi léegi ñun dinañ leen orienté wax ne ah réew mi kat nii la waaye tamit ñun ñu koy teg si as ak sax ñu xam ne ñun médias yi nga xam ne des fois dañuy critiquer dañuy bëgg a critiquer pour positivement ñu ñuy déglu rek di xam mais tamit képp ki nga xam ne tamit bëgg na yàq réew mi ñoom ñoo yor réew mi nañ na xiir gi dal seen kaw ñun loolu la ñuy wax waaye nag nangu nañ nangu critique yi bàyyi opposition bi nga xam ne ñoom déclaré nañu ñu wax seen soxla si réew mi tamit waaye nag dans la diplomatie dans la paix et dans la solidarité parce que réew mi ñoom nañ ibil porte sax opposition yi nga xam ne war nañ ñëw bu liggéey ki ñu jàpp ne am na compétence ànd ak ñoom Sénégal jëm kanam si loolu maa ngi lay nuyu baax Omar di di rafetlu baax a baax question yi nga xam ne posé nga ma ko di nuyu également euh, Asid TV moom Mbaye borom Asid TV di nuyu tamit bépp internet bi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan rawatina ñoo nekk bitim réew di ñuy teewlu jërë